tay nak ñogi Kanda kër champion sanjafu gis ngeen bedd mi ni mel ñogi ngi dugg si nag ci biir kër gi waaw gis ngeen ñi ngi dugg ci ni ci biir neegu champion sanjafu ah doyna war gis ngeen ko neeg baangi ni gis ngeen gis ngeen sanjafu fi mu teud ndaysan champion ngi ni mom lañuy wër sama dom la moy papa bëre bi dal xanaa doonu doonu li ma doon daal mooy maamam yi njëkkee boo yàgg rek làmb bu njëkkee seen maam ay maamam doon nañ ko def waaye booba xam nga bëri mooy bëri kii yooyu rek dem si dëkk dëkk bëri rek bu ñeekuwaat yooyu dal yu daan waaye daal doonu ko fenn doonu ko fenn xanaa bëgg-bëggam la rek ba mu ko bëggee man de na naa ko bëre doonoo ko fenn de te bëri dafa dansé waaye ba ma demee ba ci yàgg ma xam ne bëgg-bëggam la nit ku ne tubaab yi sax dañ ne sa doom doom dañ seetlu mbëgg ñu ñu ñu ñu bàyyi ko ca métier bu dee bu ne demee jàng métier ne ko métier moo bëgg loolu rek loolu moo tax waaye doonu ko fenn waaye na comme que bëgg-bëggam la ma jàppale ko ci rek mas naa dem stade seetaan ko benn waaye boobu laa ko ba boobu laa boobu laa boobu laa gëj dem stade muy ah li tax làmb dafa dafa dafa waar am na noo xam ne néew seetaan am na loo xam ne néew ko seetaan waaw dafa neexut seetaan parce que dana toll foo xam ne sa yaram du ko du ko mën moo tax buñ kii am ma toog fii rek di leen ñaanal bi mu doon lu moom ñëpp ko doon xaar ki mu doon bëri ñëpp a ko doon xaar da koy daan kii yoo ko man man ma ne ko nag li ma conseillé mooy nit daal li ma gën a xam nit day am jom te jolof hectare lañ xam hectare lañ xam de te ñi sa gannaaw yi dafa yaatu ba jolof kenn kenn jolof ñu jolof dem kër ñu bari réeruñu ba bari bi engage ñu bari réer jolof waxuma la ju fii laa wax jolof laa la wax jolof am na ñoo xam ne réeruñu sax. ndax combat bi. comme kon am na gannaaw daal xale na am na am na gannaaw moom macha allah. man kay li may ñaanal mooy mu góor góor wane yar làmb ji boo nekk wane yar wane teggin. man maa yaay Sa Ndiafou waaw mooy sama taaw. waaw ah bëre bi waaw neex na ma kay. waaw neex na ma moom. waaw moom duma koy seetaan ma wax dëgg yàlla mënu ma ko sax ca néeg balaay tëdd te sama kurus jàpp ba sell di ko ñaanal rek. démb noo démb moom stress bi moom metti na trop waaye nag sant yàlla rek bu baax macha allah. xanaa nga rek wiiw na sànjaaku dàll loo wax. xanaa jug na lima doon ñaan yàlla yàlla may na ma waaw kontaan rek. loo koy ñaanal. ah di ko ñaanal fan guddu ak wér gi yaram di ñaan ndam li yalla seddu guy guy guy guy mu doon ay ndami ndami ndam sha allah ñepp kontan ah di wax di def concert di jox concert mu gëna gor gor rek gëna a takkaan ngembam bu baaxa baaxa baax bu am jom bu am fulla bëgg ay ma sha allah. ah xana bëgg rek bëgg sun doom ji rek. waaw ah, yàlla na yàlla def jàmm nekk na xale bu yaru nag teg ma na teg na sama place loo bëgg suba ba ngoon mu ngi ca mënoon na ne kii de sama jabar papa la ko faal waaye macha allah suba damay xool si bët ba si suuf na ma tante loo bëgg ma loo bëgg la bëgg naa kay ñaanal fu mu bëgg yàlla na ko fa yàlla eggal victoire biiranti mi yàlla bu nekk ci victoire man déem déw ma dañuy toog di koy ñaanal yore suñu kurus yi di ñaan rek di tari salaatu faatix yi rek barkeb Seydina Muhammad bi rek lu du koy ñaanal mu gën a mu gën a góorgóorlu ca kaw ca kanam rek danga xam ne yaa am ko fii liggéey nag ñu ne liggéey nday añab doom yaa jekk fi liggéey ñu koy ñaanal du koy sant suñu borom kër gi nag ñu toog bu ko yóbbuwaat yoonu màkk si barke Seydina Muhammad yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def